rek te mooy jàngat bi ma ci bëgg am mooy li ci njëkk mooy j'aimerais pas être à la place de Moussa. Hmm. ndax tey Moussa position bi mu nekkee mooy dafa nekk di défendre loo xam ne kenn mënu ko défendre ndax ñun président de la république dañ ko faloon ci benn mandat bu war a mat sëkk bu tàmbalee le 2 avril 2019 war a jeexee le 2 avril 2024 muy 5 ans yooyu na waaye ci jàngat bi ma am mooy dafa mel ni tey président Macky Sall mandat wam boobu noonu la bëgg a yokk. jéem na xool naka lay amee troisième mandat nit ñi bàyyi wuñ ko ci troisième mandat bi donc moom mooy xool naka lay rallonger mandat wam ba mën a dab lool ba tax na man ci dialogue bi quand j'ai entendu des gens proposer jusqu'à même en avril 2027 mille je me man que ni que il y a problème ndax bu fekkoon dañoo woote dialogue rek pour intérêt Sénégal wala intérêt réew mi li conseil constitutionnel wax ci loolu la ñuy dem mhm. conseil constitutionnel li mu wax leer na mooy que ni que mandat président Macky Sall le 2 avril lay et que dans les meilleurs délais boobu ñuy wax mooy avant la date du 2 avril ñu fexee tëgg ay élections yoo xam ne ñëpp dinañ ci bokk. Moussa def na la genèse bi tax Macky la pousse rendalaat élections yi mais boo xoolee tu te dis que ni que Macky Sall dafa dugg ci benn guuta bëgg a génn ci guuta gi di fexe yóbbaale ay nit pour ñu jàppale ko pour mu mën a génn ci guuta googu noonu. Mm. heureusement ba am na candidat yoo xam ne nee nañ duñ dem toog ci dialogue boobu et ils ont parfaitement raison boo xam ne tey da ngay jël koo xam ni yoonam nekkul ci élection yi. ñoo xam ni tey nee nañ ay kilifa aada lañ ak ay kilifa diine loo xam ne ñoom seen yoon nekku ci en réalité ndax conseil conseil li mu wax ci man ci ci wàllum dialogue boobu ñu ne conseil conseil moo ko wax conseil def na ni que candidats yi nañ dem waxtaan ak administration bi nga xam ni mooy organiser élection yi ñu toog waxtaan tënkandoo ci benn date. Mhm. et loolu mooy tey si sabab yooyu noonu la ñu waroon tey dem mais tey bu ñu demee ci dialogue boo xam ne lu nekk lañ fay waxtaanee président li mu waxoon mu fa am président def na woon. datu élection la ñuy waxtaanee rek mais on s' est rendu compte que nit ñi. a jóg mooy. trouver une date une date kese la waxoon. ne. mais ku nekk la ñu invité fi yëngu ñu rëq sa ndig. loolu lañ doon l'impression que président dafa am ñoo xam te non vraiment bëgguñu njariñam quoi. non non Birama en xam na nga war a comprendre mooy ñi dugaloon guuta ci Abdoulaye Wade dugal ko ci forcing en 2012. c'est ces mêmes personne là tey ñoo bëgg duggalaat Macky Sall ci guuta googu noonu. Mhm. te Macky Sall li ma ci jaaxal man man damaa jàppoon ni Macky Sall président la boo xam ni bu judd après les indépendances c'est-à-dire bu ñëwee erreur yu bëri dootu ko defati mais malheureusement tey erreur yi nga xam ne suñu magee suñu papa yi moom lañ doon def Macky Sall ci même erreur yooyu noonu la nekk. ñun ñëpp tey ñu woon yàlla tey ci at bii ñu nekk Macky Sall génn ci réew mi ak daa ak deram bu xaw a takk ndax lii der bu ñaaw lañ teg tey. tey l'histoire li muy retenir mooy ni que Macky Sall mooy premier président au Sénégal boo xam ni il est passé d'un président démocratiquement élu à un président de transition et tey en mois moi su ma juumul Obasanjo ñëwoon na fi Sénégal doon wax waxu président de transition doon wax waxu report naan Macky Sall nañ naan Ablaye nañ ko fi bàyyi mais première personne bi jub wax ni ko loolu du ci dal kan la woon Macky Sall la woon ci dialogue bi ñi fa nekk tey di défendre teesu euh, teesu kii bi teesu tey président de transition bi ñoom ñoo incrusté woon ci conférence de presse Obasanjo doon fa bañ lool donc en réalité tey suñu xoolee ba ci biir mooy il y a un problème réel bu am mooy Macky Sall moo joxul cër ay institutions yi nekk Sénégal ndax Macky Sall bu joxoon cër suñu institutions yi surtout conseil constitutionnel bu conseil constitutionnel jox ko ne ko balaa le deux fexeel noo organiser say élections Macky Sall benn waxtaan la war a woote mooy woo les 19 candidats ñu toog woo waa DGE woo waa CNRA woo waa CEDA ñi nga xam ne ñoo war a organiser élections yi ñu toog waxtaan ci ab date mais tey ñu taxaw bëgg ñëw wax ubbi ay débat yoo xam ne kenn amul sens tey en réalité benn dialogue national bi fi war a am xam ne ñan ñoo ko war a organiser mooy le prochain président bi war a ñëw moo war a tey woote benn dialogue national boo xam ne dina ubbi ñëpp ñu toog waxtaanee ci suñu réew tey nation réconciliée boobu moo war a nekk sujet d'un dialogue national mais loolu c'est avec le président nouvellement élu